di nuyu mbokki jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yi ba ñoo taxaw fii ngir jot ay kàddu yu bi yi ko war muy cant gërëm rek la ndax sëriñ bi kon a xam na ne lépp lu xew ci réew mi lu xew ci nit moo njëkk a moo ciy njëkk a ci loo xam ne yërmande yi taalibe lay doon ci loon dox ko wax lam ci doon lim ci dox ko wax it mooy dimbali wax moo ci njëkk a def lu fi mas a xew moo ci njëkk génne alalam duñ ko fàttaliku ci mbënd yu njëkk yi ak ci bi duñ fi mas a jaar ba ci lakk yi ak tam la fu ma toogaas ak fu nekk ba ci mbënd mi amaatee ba ci feebar bi ñëwee lu mu ci maa doon moo njëkk génne alalam teg ci santaane ñu jàppale leen teg ci ñaanu yàlla moo woyofal loola loolu moo tax mbënd mi amaatee ren tam Touba gii muy soñ gouvernement bi ci nuñ taxawee ci ndox mi nu mu woyof ci bindee fi mu génn xaalisam cinquante millions ne nañ ko dimbalee mbënn mi mhm. loolu nag ci la nekk ba tax ni ko baaxoo defee saa su defee lu mel noonu bokki taalibe yi dañ daal di am ñu am volonté ñu bëgg lu baax ñoo xam ne dañuy yëkkati seen alal def ci ci biir loolu am na benn mbokkum taalibe moo xam ne xaritu sëñ bi la yàgg nañ muy sëriñ Baara Gueye sëñ Baara Gueye fan yee la ma woo ne ma damay indi moto pompe indi carburant indi ceeb indi suuf ngir jàppale ko sëñ mbënn mi te la ma cey gën a jublu nag mooy nit ñi gis ko kon ne def ne man wala la sëñ bëgg mu gën ko yomb loolu moo waxoon nag alhamdulilah rabbil alamin yàlla dimbali na ko ja ñëpp def ne man ji moo andi jataay bi tey bi mu ko waxtaanee ak ay wëllëreem ba àgg ci Daouda Gaye moomu moom moo ko wax Daouda Gaye Daouda Gaye nag kon damay participer comme ni nga participer yónnee samay addiya te loolu la Daouda Gaye yónnee ndaw yi jox leen ak ñaar fukki moto pompe ak seen i carburant ak lépp dañ ko indi teg ko ci bi ñu jëriñoo ko ci dëkk bi ndax mu woyofal nattu mbënn mi loolu moo fi andi jotaay bi kon ñu ko koy sant bu gërëm di sant ndaw yi mu yabal di sant Baara Gaye mi nga xam ne ci moom la jaar ba def jëf ji ñoom ñëpp yàlla leen suñu borom fay ci barke bi Sëriñ Tuuba jërë ngeen de loolu moom lu may li ma wax rek jeexal na wax ji sëriñ moom bëgg nit ñi am jàmm natt bi jeex lépp set lépp leer moo ci la woote la moom ci la ko jëmale ba fi mu ko jëmaleet kon a xam Baara Gaye bu andee matu fam indi carburant andi ceeb andi suuf loolu koy daa bëgg jàmm waaye kii ko yëg roy ko ci moom moom dooro ga itam andi li mu andi ñëpp defee lépp daal di jàpp ne daal boobu tey loolu ko ñu ngi sant ñëpp di euh, maa ngi tudd Mamadou Ndiaye euh, nekk vice coordonnateur plateforme Xippil Xool li fi Macky def bi nga xamante ne le coordonnateur mooy Doro Gaye euh, tey mu yebaloon ñu fii ci tuubaa Euh, ñëw ànd ak ñun euh, ziar ki nga xamante ne mooy xalif général des Mourides mun Mountakha yàlla na ko fi yàlla bàyyi te mu wér euh, yebal ñu aussi ngir ñu ñëw ci ñi nga xamante ne ñoo nekkal sëriñ bi ngir xeex inondation yi fii ci Touba bi ñu ñëwee mu jox ñu vingt moto pompe moom Doro Gaye jox ñu li nga xamante ne mooy carburant yi mu àndal ak addiye boo xamante da ko ziyaare sëñ bi ngir jàpp ci liggéey bi nga xamante ne sëñ bi mi ngi koy liggéey université bi nga xamante ne moom la ñuy def Touba ñun nag euh, lii nga xamante ne moom lañ fi indi tey yàlla dafa dogal ñu nekk tournée nationale euh, ba mbënn mi amee ba tey ñëpp gis nañ plateforme Kipir Xool dem ci région yu bëree bari ngir accompagner population yi nga xamante ne fa lañ nekk tey nag ñu ne dañuy ñëw fii ci Touba ndax euh, ñëpp xam nañ ne màggal gaa ngi ñëw te ñëpp gis nañ inondation yi ni mu sonale waa Touba moo tax ñu jël suñu priorité ne dañuy ñëw tey fii ci Touba indi fi ay moto pompe yu mën a permettre askan bi nga xamante ne ñi ngi ci koñ bi mën a ŋàcc ndox yi nekk ci biir kër yi mën a ŋàcc ndox yi nekk ci koñ yi ba taalibe murit yi war a màggal si su suñu ñëwee mën a màggal ci jàmm dal jàmm delluwaat ci jàmm looloo taxoon tey ci ndigalu suñu coordonnateur monsieur Dora Gaye ñu ñëwoon fii ci résidence Khadimou Rassoul ngir def remise symbolique li nga xamante ne mooy moto pompe yi ak carburant yi ñu indi ngir vraiment taxawu askan bi ba nit ñi mën a màggal ci jàmm delluwaat ci jàmm